tax ndax yaayam na loo xam ne euh, kenn buñ ko joxoon ay milliards sax du tax mu ñëw dafa foor ñàkk na doomam dama doon wax ne gis naa démb ku mel ni Amina Poté def benn live muy nit ku baax nag Amina ndax lu xew ci Sénégal rek dina génn wax lu rafet noonu la mel mook Malick ma gis leen ñu def lu rafet mooy ñi ngi doon wax waxi ñu ket mm-hmm. dajale benn somme indil yaayu muy lu rafet nag lu ma rafet lu man parce que même bu ñu ko indiloon ay milliards sax du tax xolam dina tooy ba tey ndax ki mu ñàkk mu ëpp ay milliards doom trésor la ci xol boo ko ñàkkee dafay am lu jóge ci yow ndax ñàkk dafa metti mais loolu bu ñu ko mënee continuer lu waaye am rek indi waxuñu ma nag ma waa euh, yónniwuñu ma waa këram yónniwuñu ma mais man maa gis ne ñoom ñu ngi koy def muy lu rafet rek ma bëgg ñun ñëpp ñu jàpp ci mu dëgër ku nekk loo am nga bañ ko xeeb même bu dee 5000 francs sax nga indi ko ñu dajale ba mu mat indil yaay ji ndax xolam feex tuuti xam naa ne sax loolu du feexal xolam. ndax tey jii bu fekkoon alal mooy tax Aziz toog Aziz du dem. ndax ñëpp la amal jàmm fii ñu fi toog ñëpp la amal jàmm. ñu rek la mënoon deme waaye sunu gistru euh, sunu polisu réew. Mhm. Euh, euh, kii nañ ci ñoom am nañ ci ñoom yaakaar boo xam ne ku nekkul ci yoon dinañ la teg ci yoon. parce que ku nekkul ci yoon dañ la war a teg ci yoon wan na leen lii nga def du yoon waaw. ñëpp respecté la. Mhm. te mosoo fee def lu ñaaw. tey nga nekk taasukat boo xamante ni. Mhm. képp kuy def dara il woo la waxtaan ceeg yow nga mhm. nekk fierté Pikine Aziz Dabala amoon ay projet yoo xamante ni tey ji mooy dajale képp artiste Pikine def leen ci benn benn salle ñuy répété loolu est-ce que projet boobu jotul yow nga porté loolu après dinañ ci wax tey comme xol yi dafa tooy euh, tey dañuy fàtte projet tey dañuy fàtte fecc tey dañuy fàtte taasu tey dañuy fàtte lépp luy ngu ngumbaay te ñaanal Aziz mi nga xam ne moo fi jóge tey di ko ñaanal yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci yàlla teg loxo merci beaucoup jërëjëf mais image xam ni nga daan gisee Fama Faye ak tey duñu benn bi may ñëw sax bëgguma nit xam ne man la sax moo te dama takk véri rëy pour bañ ndax naqar laa nekk dañu nekk ci tiis ndax lu ñu tudd doomi ginnaaw raay rek lal na ñëpp waa tamit nag ñun guddi guddi ginnaaw raay man sama baay fii la njëkk a am titre foncier étage bi fi njëkk a tabaxu ci ginnaaw raay nit ñi di ko joxoñ sama baay moo ko def kon kon man fii rek laa am fekkewu ma ko waaye lu ñu doomu ginnaaw raay rek ñun ñëpp ñoo am naqar waaye nag euh, seytaane fu nekk lay dugg te ñëpp lay dal natt moo ñu dal rek te yàlla na fit jam ba bum dal ñeneen waaye Aziz daal nit ku baax moo dem te ko xool bisamii xool li mu tombeel 18 safar bi Sëriñ Bamba te génnuñu ko lii am mu nekk métti métti ñu boole ko ñu ni suba la màggal Touba bisub Serigne Bamba nga xam ne ñaan ngi Serigne tubaa moom foo nekk rek ñaan ngi fekk la fa ñu jël ko yóbbu ko néegu Pikine kooku mooy doomi banlieue kon doonu ko mës a fàtte naqar la ci man naqar la ci doomi ginnaaw raay yëpp ndax koo ci xaar xolam rek bëggatul dara léegi sax am na ku ne ma ndax da nga euh, faama fay la la man ko dama bëgg a dem Mali ndax des fois am na yenn yoo xam Mali rek la xaj yàlla mën na lu nekk merci beaucoup maa ngi jégalu nag kàddu yi mënut a gudd. benn question rek benn question bu mujj gis nañu Aziz jot na feccal façon artiste bu nekk depuis dëj bi ba léegi tetu artiste bi nga xam ne ràññee nañu fi néew na lool ndax loolu euh, euh, euh, rafet na ci jëm Aziz bi nga xam ne feccal na leen guddi na leen bëccëg na leen bëccëgal na Maas ñu naa la maa nekkuma fi woon dama demoon mission Touba mais loolu jaadu. gis nga nit ki buy ànd ak yow ci bi muy dund di la gunge su deewee danga kaa war a gunge ci gis nga lu tax ma fonk homme de tenue dama leen fonk laaj ma lu tax boo génnee àdduna te bokk ci seen deret wala nga bokk ci ñoom ah dañu lay defal loolu nga xam ni mooy waxtaan wu mujj sa diggante ak ñoom kon ñun dañ ko war di deflante ñun artistes yi Aziz artiste bu ci nekk rek lebal na la lu baax xam nga luy lu baax li ku mu feccalul tam yoroon na mbubu artiste boo xam daan na wuyoo ne man sénégalais laa te artiste laa kon ñëpp ko war a ñëw jaale si te maa ngi ñaan bépp artiste bu ko dégg Aziz du fecckat kese ndax woykat bi mënut a dem sans fecckat bi fecckat mënut a dem sans musique ndax bu musique bi takkul du fecc bi ci des mooy loolu tourné ko beneen liggéey la woon boo xam ne da ka daan sol casquette mais su ñëwee da ka daan summi wane ni man fii mooy sama dëkk fii laa am may wax ni daal ku ko dégg war nga ko mën a ñëw jaale si ndax man bëgg ngaa dégg dëgg bis moo fi jóge woon yàlla na yeex ragaluma dee nag ndax amatuma ndey amatuma baay bis moo fi jóge woon bëgg naa ku ma seqal ak di jàmm rek na ñëw seedal ma lu ñu seq muy lu baax ndax man lu baax rek laa xam te lu baax rek lay wax kon képp koo xam ne dégg nga ko guddul artiste sax ñëpp naqarlu Aziz Dabala rawatina ñun suñu musique seen réew ku baax a dem bi ci des nag muy cité kenn ku ma gawlu démb dama jooy ba ci yàgg ma xam ne Gawlo rek la mën a doon kooku noo bokk maam ci Tiwaawan dama ko xool rek dërët yëngal ma dama jooy nit ku baax témoignage bu rafet ak Aziz ndax nit ku dem ba pare ngay teg ci leneen ci deram rafetul ndax bi muy dund est-ce que ñemeeg na ko wax kon nanu nanu maytu yu bari di wax nag Kumba euh, Gawlo merci beaucoup ci témoignage yi ndax man su ma dee artiste yi tey sa baat benn baat bi ma dégg nga wax ci Aziz permettre na ma man Fama fay ma dem ànd ak yow ndax waykat nga man may artiste ndax xam naa ne tey bu ma fi jóge woon di nga def témoignage yu mel nii kon nit ku baax la may jégalu ci kàddu yi mënatuma nag ndax lu lépp tuuru merci beaucoup maa ngi jégalu ñëpp di leen ko jaar yéen ñëpp nag yéen it yi bokk ngeen ak ñun naqar bi yéen boo leen am woon ci réew mi ñu wari leen dañu wax télé yi nit ñi seetaanatuñu xaaratuñu télé yi télé ci poche moo mais yéen yéen a ngi ci tiktok bi yéen a ngi ciy jàpp bu baax a baax a baax a baax yéen a ngi fësal ñoo xam ne mënuñu woon xam li xew kon boo jërë ngeen jëf jaaraama yéen waaye nag maa ngi leen koy jaale ndax ñun ñëpp ñoo bokk Aziz Ba sama rak sama xarit merci beaucoup ci kàddu yi. merci beaucoup Pape. am samay dàll. gars yi boo leen arrière tuuti mu baale da ngeen di arrière tuuti rek. waaw ñu ngi leen ñu point de presse rek.

Seydou Seydou jëlal boobu parce que bee câble bi ñëwul jëlal bee parce que bee câble bi ñëwul. saak bañ. waaw demal kàpp sam ku ne bi. saak

waaw mère bi laa bëgg mu toog fii yéen ngeen mën a am kii bi quoi nice. dugal ma la. waaw xaaral non xool da bëgg mu toog da bëgg mu wéer noonu ci biiru jàkka ji. voilà oui ma en face la war a nekk envoyé ma message mais du koo xam ne dañoo sekk tout le temps dañuy wax wala dañuy dañuy dañuy demalante voilà raq la comme feccikat yëpp ni ñu nekkee suñu raq nekk suñu xarit nekk suñuy doom. waaw justice moom incha allah xam naa ne ñoom seen liggéey rafet na te li war ci ñoom dinañ dinañ ko def man loolu yaakaar naa ko ndax ñoom ñun ñoo tax ñu nekk fii voilà xam naa ne incha allah lépp dina leer bu neexee yàlla yal na yàlla leeral lépp rek te yàlla sàmm ñu sàmm njaboot yi voilà. mais association des danseurs ci bokk tey ngeen war def conférence de presse lan moo ci war a nekk seen taxawaay. waaw association des danseurs may nuyu suñu président Pa Moussa Sonko. ndeysaan boobu ba tey mu taxaw ci taxaw bu rafet que ne woon bu kenn wax nañ leen dal parce que dañu am métit li mu wax dëgg la ñëpp a mais ñun fecckat dañoo ñàkk tey ñuy joué théâtre dañoo ñàkk tey artistes yëpp ñoo ñàkk voilà Pa Moussa tey dafa ne ñu daje fi ñëpp ndax keroog nekkoon nañ fi mais moom mooy suñu président ndax moom lañ ko teg mooy suñu njiit lu mu wax loolu la ñuy def que ñun ñëpp ñu tasee fi tey gisante ak yaay Aziz Dabala masawu ko masawu waa ginnaaw raay Euh, di wax ne métti na métti na ci ñun ñëpp ndax ba mu amee ba tey kenn nelawul yaakaar tas na ci xale boo xam ne mën naa ne jamono bii moo fi tegoon loxo te ñëpp nangul ko ko nag fecc kat yëpp nangul ko euh, loolu dañ koy ñaanal yal na ko yàlla xare aj na fi daw si mais artistes ñëpp a ngi ñëw ñoom Ndeye Gueye ñëw nañu umu saw a ngi ñëw ah ñëpp a ñëw daal di ngeen gis ñëpp tey incha allah di ngeen ci gën a waxtaan ndax mën naa ne man mënuma sax wax mais métti na daal. mais mais lu mel ni naka la mën a lan la mën a def ci image dance Euh, man dama naan est-ce que danse amatina man laa mën a wax am na ba tey mais dangay ngay ñi doon fekk sax dañuy découragé parce que man am na xale fecckat bu ma ci jot tey sama doom day yirim euh, ñuy waxtaan ndax man maa ko jàngal aar ma xam ko yar ko ci li nekk ci man moo nekk ci ndey yirim que ma déggoon ci problème bi ñu boole ko mais tout le temps bu ma wooyee yaay dama naan ko dalal yow doo bokk ci dara ndax dama ko xam dama ko yar te li nekk ci man moo nekk ci moom voilà mu ne ma bàyyi naa fecc ma ne ko bul bàyyi xale nga continuer te fecc mën naa ne aar la rek loo xam ne xale yi dañ koo gis di topp ci ñun te yaakaar naa bu fekkee ne dañoo gis lu ñu ñun li ñu fecc ci aar def ko mu rafet te gisuñu ci ñun dara lu ñàkk fayda bu ñu toppee rek dinañ dem xaw ma nag léegi xale yi lan lañu ñu bëgg jublu ci aar mais lu doy waar la daal mais fi mu ne moom artistes yi euh, fecckat yi surtout ñu ñu dal ñu ñu ñu wàññi tuuti xoolaat seen vie xoolaat ni ñuy feccee am na fecc yoo xam da nga gis tey ñu koy fecc du fecc bu rafet ay fecc bandi yi yoole yoole amul sens jigéen feccal sol lu jot fecc boo waree lëmbal nga lëmbal boo waree baara mbay nga baara mbay xam nga génn suñu culture mais pas ni ñu koy defee léegi ñu wàññi tuuti xam ne adduna bi dafa jeex ba pare dara jaru fi dara voilà merci beaucoup jërëjëf kontaan naa ci yéen